alors nous sommes toujours euh, dans la résidence artistique bi nga xamante ni euh, dix ndaanaan donc fi la ñu nekk war a seq li nga xamante ni moom mooy projet bii di effort ensemble force organisation ak li nga xamante ni moom mooy responsabilité ma toog nag ak Dior Mbaye doon doonuñu ko présenté Sénégal euh, sénégalais yi dañu ko bëgg tarkalla macha allah ci ay woy yu neex donc joor ñu ngi lay nuyu bu baax baax di am mbégte fekk si la tey ci villa bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak sénégalais yi. salaamaaleykum DJ Am maa ngi lay fay di nuyu seen ami internet yi di nuyu waa Sénégal set yëpp waa di kontaan vraiment ci eh, ci invitation bi wala ci dalal bi parce que ñoo leen dalal. tey waaw kay yéen nañu dalal ah, ñoo leen seet si fekk si <laughs> leen euh, ci dalal leen. macha allah <laughs> alors euh, pour la première fois. ñu mhm. gis ko fii ci Sénégal mhm. donc 10 voix féminines. Mhm. Euh, songu benn projet boo xamante ni c' est pour la bonne cause. du mois de mars bi lee xamante ni dañu ko jagleel jigéen ñi en tant que jigéen ngeen nekk waykat donc ngeen nekk fii war a def benn album boo xamante ni di way joxe seen voix. ngir xeexal ñi nga xamante ni ñoom ñooy jigéen ñi ana lan nga ñu mën a wax ci projet bi ak aujourd'hui a fait tey ñu tànn jox tey mu war a bokk ci projet bi nga xamante moom mooy effort. waaw euh, euh, damay kontaan. Mhm. waaw parce que en tant que jigéen je pense que ku ci nekk am nga rêve boo xamante ni mooy euh, jàppale sa moroomu jigéen dooleel ko. Mhm. boo demee ba ñu boole la ci projet boo xamante ni loolu loolu lay woote ci mhm. loolu lay dox. c'est un grand grand plaisir ba ñu tànn la ci. ça veut dire que euh, ñu ngi lay bàyyi xel peut-être li ngay def xëy na bu demeewul woon noonu wala amul woon fu leen leen toll ñu ko def donc lii doon lu ma neex lu ma marqué trop trop trop trop mhm. li ma ci marqué bari na bari na bari na mais dans l' ensemble mhm. presque lépp ma moo la neex dans l' ensemble le choix ñi nga xamante ni dañ leen boole ci projet bi mhm. mu nekk dix univers ay jigéen yoo xamante ni ku ci nekk mën naa ni sa style euh, bokkul ak sa bu morom donc mu am ñoo xamante ni euh, je sais pas am ngoon nga relation ak ñoom avant mais xëy na tey le fait que ngeen nekk ci résidence bi pendant dix jours dafay gën a raffermir nga xamante ni moom mooy seen ay relation naka ngeen koy dundee en tant jigéen euh, loolu mooy li nga xamante ni moom a gën a marqué ci projet bi. Mhm. parce que presque ñi fi nekk ñëpp ñu bari euh, bi may ñëw ci projet bi lañ soog a gisante ku ci mel ni mi yaa gisee mhm. su ma limee daal day day day bari presque mën naa ni mennum jey laa laa ci xamante loon donc ñi ci des ñëpp ci biir projet bi euh, laa leen xamee. Mhm. ñu ñëw nag euh, ñu mel ni ñun ñëpp dañoo xamante ay at. duñu sax nelaw ndax ambiance chaque jour ñi ngi ensemble ñi ngi waxtaan. ñi ngi waxante ay secret lu kenn musta gis ñu ngi lekkandoo ensemble dañuy nekk bu ñu prisé ba ba ñuy defe ni sonn nañ bu ñu yéegee duñ nelaw dañuy nekkaat ci kaw di waxaat yeneen wax comme ñu namante en fait kenn en fait c'est incroyable musuma gis euh, complicité bu mel nii ku sa morom toog wéet sax di nga ñëw lijjanti ko lan moo ko naqari lan moo ko metti en fait c'est quelque chose boo xamante ne man mosuma woon xam ne musicien musicien sénégalais yi Euh, am nañ bi complicité. Mhm. parce que bu ñu doon gisante de loin. Mhm. ku ci nekk da nga doon laalee sa morom bant bu gudd parce que concurrence peut-être danga doon ragal ni moom day doo koy am ci esprit mhm. mais fii même bu ñuy posé ku ci nekk tant que sa morom posé wul lu normal li nga xamante ne net na doo ko bàyyi. dañ koy neexal di ko may ay affaire di ko di ko <laughs> bu posé ba pare ñu koy yëkkati di ko coqutaat di def ay façon donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. donc euh, loolu rek. matoon na projet avant leneen li le ñu boole leen yéen ñëpp et puis voilà mu am euh, ambiance am complicité mu mm. mel ni que ni bokkul ak li sénégalais di yaakaara ah. ndax euh, musique bu ñu koy wax euh, surtout aussi jigéen des fois concurrence beek mm-hmm. wala seen i ay fans mais gis nañ que ni vraiment à travers ce projet là donc complicité am na bu baax a baax ci jigéen ñi li ko sabab au fond muy message yi nga xamante ne da ngeen koy dëxañ ci biir wayi jagleel ko jigéen ñi mm. dañuy taxaw foofu en tant que jigéen mm. euh, mois de mars bi le euh, ci thème yi nga xamante ne tey moom ngeen nar a tey euh, boole dëxañ ko ci album bi tey boo ñu ko mënee limal benn par benn yan thème la yoo xamante ne tey mën nañ ko retrouver ci album bi voilà thèmes yi bari nañ trop am na violence faite aux femmes mm-hmm. am na entrepreneuriat féminin am na coono yi jigéen yi di daj mm-hmm. am na accouchement mm, kii nu mu Euh, mortalité maternelle loolu yëpp am na ci donc ay ay kii yu sensible yi nga xamante ne touché woon nañ jigéen ñi mhm. loolu lañ ci wax euh, ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xamante ni mais vraiment mhm. album bi moom su génnee je pense que dina neex ñu bari. ça ne cartonner surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko seq. Mhm. Euh, alors bu ñu waxee mois de mars comme ni ma ko waxee donc journée mondiale de la femme. fii ci Sénégal aussi ñu gis. ba léegi nii ñu ngi mettital jigéen ñi ba mm-hmm. léegi nii jigéen ñi ñu ngi jug di àddu di kaas ngir euh, wax que ni doy na euh, mm-hmm. non aux violences conjugales mm-hmm. donc yow en tant que porteur de voix aujourd'hui qu'est-ce que ça te fait ngay gis que ni Sénégal vingt-et-unième siècle ba léegi nii ay jigéen ñu ngi nekk di souffrir moo xam seeni i biir kër euh, ci seen ay sëy wala aussi ci ni nga ko waxee bu ñuy accoucher ci li nga xamante ne moom mooy mortalité maternelle voilà euh, loolu dafa ma metti parce que man koo ku xam joor di ko suivre. Mhm. je pense que single bi ma njëkk a njëkk a def sama sama àdduna. Mhm. pédophile la tudd. donc affaire viol viol la doon wax affaire violence. Mhm. donc loolu noonu man dama mës a xeex ci loolu beneen son bi nga xamante ni moo ma gën a définir mooy dem naata duma du dellu si. mi ngi nekk jigéen bu nekk ci sëy. di métitlu di métitlu ba amatul doole jooy ko fu nekk naqarlu ko fu nekk muñ ba sonn après mu ni ko dem naa mhm. te dootuma dellu si donc ça veut dire que euh, ñun ku ci nekk da nga am ay combat yu bari yoo doon mëne mhm. donc man sama rêve moo doon wax ci mhm. voilà donc jigéen yi tey soo demee ba nga xamante ni viol lañ doon jooy mais léegi crime la ñuy jooy parce que ñi nga xamante ni day ragal su la violé nga boole ko su la violé ba pare dalay rey pour dootoo waxati. Mhm. donc loolu moom moo tax y a beaucoup de morts y a beaucoup te ñu gis am na ñoo xamante ne dañu porté disparu ba léegi dañu naan dañu réer wala dañu dem. Mhm. fekk def nañ leen ñaawteef maara day taali te xamuñu fañ leen leen gisee. Mhm. donc loolu yëpp tamit dañuy sensibiliser. di góorlu di wax ñu yërëm ñu. waaw parce que loolu amul benn sens. waaw bari na fi torop jigéen jigéen euh, am na doole amul doole. waaw jigéen mooy àdduna jigéen mooy lépp. waaw je pense que bu ñu yërëmee rek loolu yëpp dina am solo ba pare projet bi nag loolu moo ko moom moom loolu moo ko sabab voilà parce que ñun ñu ci bëgg mooy nit ñi xoolaat jigéen yërëmaat jigéen mhm. mais fonkat jigéen mhm. voilà je loolu lay am na solo donc mm. mu nekk ay kaddu ki nga xamante ni moo di Dior Mbaye nekk l'une des yi nga xamante ni donc ñoo war seq li nga xamante ni moom mooy euh, projet bi la bu ñuy wax aussi Dior mënuñu waxtaan ak yow te duñu wax aussi euh, nga nekk jigéen euh, di doxal sa carrière ak Sénégal ni mu tëddee métti na méttiwul est-ce que Sénégal nekk jigéen di def musique neex na metti na méttiwul bu amee côté bu mu metti rek mooy ay préjugé genre jigéen sëy na guddee naa ñëw guddee naa génn dem na liggéey te bu doon góor duñ ko wax ñu am yu ñu teg sa baat wala am yu ñu teg sa baat yu ñu teg sa ginnaaw mhm. donc loolu des fois day metti ba dalay bloqué parce que des fois soo naree génn yenn heures yi mhm. taal sa oto dem fenn di nga sóoraale ni man kat dinaa taseeg diw dina ni kii fu mu demoon heure bi naka su dul noonu wala leneen ak leneen. Mm-hmm. donc dangay pro da ngay mujj ñi lay liggéeyloo sax nga naan leen est-ce que heure bii du baax du ñu bàyyi ñu ñëw heure bi pour mën a dellu gaaw. Ah non te loolu rawatina image bu fekkee am nga jëkkër. waaw mais heureusement euh, man euh, sama ménage. kii wul impacté wul trop sama vie artistique mhm. parce que peut-être ki may euh, nekkal mhm. daf ma ci fekk ba pare euh, di ma ci pousse di ma ci jàppale tey ku bàyyi sa jabar mu dem pendant fukki fan di mhm. jours génn këram bàyyi la fa ñëw nekk feneen kooku doonu amul problème boo xamante ni euh, metti na torop quoi mhm. mais bon euh, li ci def mooy euh, société bi boo mhm. nekkee société boo xamante ne dañu am ay valeur mhm. dañu am ay jikko yu ñu baaxoo dañu am ay base yow yaay woddu sa doxin du lu ma neex def du lu ma neex wax parce que yow mi koy def ba pare nit ñi di la seetaan ngay référence après day impacté waaw parce que ki la seetaan danaan ah comme Dior mbaay def na ko de man garaawul war naa koo mën a def mm-hmm. donc loolu moo tax ñun ñuy xoolaat suñu doxalin di xoolaat suñu toogaay di defar suñu suñu do toogaay fu ñu mën a toog. macha allah loolu lay am na solo. mais de mhm. manière générale musique bi neex na ah, mu ngi fay xaalis beeg euh, ñu ni mel. <laughs> waaw ñu ngi sant yàlla moom <laughs> li naan mag du sëgg fu dara nekkul. <laughs> bu fekkoon ni wax dëgg yàlla ñu ngi ciy dugg te duñ ci am weccet ba tey génn nañ ci. Mhm. mais nag amour daf ci jiitu man li may def dama koo bëgg. Mhm. waaw wax dëgg yàlla xam naa ne su ma ci amul woon dara sax. Euh, wax dëgg yàlla dinaa ko def. waaw man waaw comme man doomu géwal laa loolu laa xam loolu leneen. voilà donc loolu moo tax mais nag macha ngi sant. yéen a ngi sant quoi euh, macha allah en tout cas vraiment donc ñu bàyyi la rek ci tënk euh, ci li ñuy euh, mu nekk kàddu goo xamante ni bëggoon nga ko dénk ñi nga xamante ni ñooy jigéen moo xam sa ay rakk ban taxawaay la ñu war a am ci société bi la ndax fi ñuy xaar jigéen dafa dafa dafa dafa sori dañu am yaakaar parce que yéenay yaay yéenay jabar yéenay mag yéenay rakk yéenay yor kër yi donc ban kàddu rek ngay sànni ci loolu. waa kàddu bi may sànni mooy di leen collectif bii ñun dix femmes yi ne ci biir gàlle bi rek mhm. moomuñu ko mhm. bu ñu leen nee ñoo ko moom nga romb Dior Mbaye effort ñu ngi nax suñu bopp mhm. projet la boo xamante ni ki ko teg da ko teg am vision bu yaatu ñun suba mën nañ fee jug ñeneen ñëw donc nañu ñëpp soutenir parce que bu baaxee suba mën naa law ba teq la mais boo ko yàqee tamit mën naa am fa mu la mënoon na suba mën na la fa yëkkati am fa mu la yëpp du demee noonu donc ñu ñëpp ñu booloo ndaxam xam ne ñun li ñuy liggéey nii moomuñu ko pour jigéen ñi la ut ci ay projet la ut ci ay chaise roulante offrir ko jigéen ñi dem ci prison yi offrir leen ay jumtukaay yoo xam ne amuñu ko woon loolu lañ ci jublu li tax ñu tànn ñu mooy euh, dañuy def une pierre deux coups mhm. maanaam nit ki ci li ngay liggéey ci nga mën a baax ñun en tant que chanteuse ay nit yu siiw lañ ay nit yoo xamante ni dañuy wax ñu di ñu déglu mhm. du fecc ak way rek la ñuy dañu mën a ameel nit ñi mhm. waaw léegi bu ñu nit ñi feccalee wayal ñu tiktogal ñu ñu nit am nañ service bi ñu leen war a mën a rendre maanaam ci suñu baat mhm. ñu daal di leen ci defal loo xamante ni mën na leen a jariñ comme suñu yaay yi nekk xëy fajar di génn yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni macha allah projet bi ñu gën a xuus di ngeen ko gën a gis mi ngi noonu di profiter nag di leen remercier yéen ñi nga xamante ni yéen a taamu Sénégal 7 yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy suivre boobu ba tey ci villa bi. Mhm. di bëggee waaw ki nga xamante ni. parce que naa ko wax ki nga xamante ni moo ma jàppale ba ma egsi fii. Mhm. di ma dooleel saa su nekk. Mhm. muy borom Sunset Beauty. waaw Sunset Beauty Anne Maris donc maa koy gërëm di ko remercier di leen remercier yéen tamit ak alaaji bi waaw di remercier alaaji bi waaw moom. moom moom dañu koy beral loxo waaw ah. waaw mu ngi noonu di ko remercier di di di kontaan encore une fois ci ñëw bi ngeen ñëw parce que bu ñëpp defoon ni yéen je pense que dina gën a neex mhm. waaw lu baax dañ koy siiwal dañ koy tas mhm. du lu da ngay xaar ba nit def ayib rek nga profité ci mhm. Sénégal 7 mois je vous adore. macha allah yàlla leen defal jàmm. <laughs> en tout cas merci beaucoup ñu leen gën a kontaan loolu le mooy suñu mission donc fexe ba jege sénégalais yi lépp loo xamante ni euh, doomu sénégalais mu ngi koy liggéey loo xamante ni rek liggéey ngeen ko fi donc mu ba a nga moom mooy enregistrement yi am internet c'était Dior Mbaye toujours dans la résidence <laughs> artistique avec le projet effort engagement force organisation ak responsabilité dégg ngeen message yi nga xamante ni moom la partagé ak yéen ñu bàyyi ko mu dem euh, ñu daal di jëlaata parce que bari nañu fi ah vous êtes dix donc euh, après jox dañuy daal di amaat beneen invité léegi léegi.